waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ci seetaan seen chaîne bi nga xamante ne mooy Chérif baax TV ba tey niñ leen ko waxee ñu ngi waat fii gin ci ñàngay di ci ziaru no Adama gay at bi nga xamante ni mooy atu 2018 yàlla dogal na ñu ngi nekk fii ci benn këru kilifa gi nga xamante ni dañ koy bàyyi léegi mu nuyoo te présenté ñu wax ñu moom mooy kan ak lan la nekk ci dëkk bi bismillah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi nuyu mbokk yëpp mbokki jullit ñi ak ñi ñëw ba fii di nuyu ñëpp man eh, Mamadou Niass lañ may wax ci dëkk bi fi laa juddoo fi laa màggee sama waaye jur Thierno Baba Niass lañ koy wax Ceerno Baba Ñas boobu maam usmaan papay Ceerno Adama moo ko jàngal bum dem seedo ci Sëriñ Umar seedo eh, jàng fa alquran ba mokkal ko moom ki ko yaroon maam Ousmane boole ko Ceerno Adama sama way jur boobu moo jàngal Ceerno Adama bu mu wattu alquran Eh, hakada boobu boo waajur wi jiitoo nu ne tam sunay mbir yëpp ñu def ko ci sëriñ bi muy sun waajur la sun najaay la sun lépp la waaw muy këñ ràññ itam ci ñëpp xam kënu dimbale itam ci yëpp ci booru diine ci nañuy doxalee àddina yëpp mu jàppaleen lu ci macha allah bismillah tabarkàlla comme ni ngeen ko waxee muy Thierno Niass tabarkàlla ginnaaw bi nga ñëw waxee li nga xamante ni moom nga nekk ci dëkk bi wax ci yaay kan ci dëkk bi tey li nga xamante ni mooy ziar bi nga xam moom la ñu góor gu tedd gi góor gu sell gi muy Thierno Adama gay tey boobu léegi ñu ngi koy doxal tey mën nga ñu wàll fekk nettali ci wàllu taarix rek li waral ziar bi ak li nga xamante ni moo tax ni ñëpp ba fu nekk mën a ñëw ci ziar bi. waaw euh, ziara bi même su fekkee ni jàppuma ban année lañ ko commencé ba nga xamee ni mbiri sëriñ bi yàlla def na ba mbiram siiw ñëpp xam ko sun bokki ñànga nja ñànga daan njàng képp ka nga xam ne ma ngi askanoo njàng ak li ko wur ak idi ak diwaan bi yëpp ñoo déggoo ci taxawal sëriñ bi ziyaara pour moom euh, gënulu ko ndax def na benn temps mu ni ziyaara bi moom moomu dëkk bi moo ko yëpp ko moom diwaan bi yëpp ko moom def na benn temps mu ni bu dul woon du bañ wax dana jël ziyaara bi yóbbu ko ci kër imaam Habib ñi da ko defee foofa pour won ni nit ñi du du du moom e, mu ñoomeeloo ni ñi itam ni la ci nit def boppam na ko defal waaw mu muy doxalee noonu doxalee noonu ba yàlla indi Thierno Mamadou Thierno Mamadou e, tegi tànkam foofu Mohamed wax dëgg yàlla même su fekkee ni niroog mag ñi wala e, roy leen dana xaw jafe mañ ci bay waaram da ci def lum man te bu amee ba tey at ma nekk dañu yëg yokkute yokkute ci mbir yëpp nag eh, muy ci fii ci biir fañ koy defee ci diwaan bi fii ci Nianga Edy ak la ko wur eh, ak ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi ñëw naka sun mag yi eh, Serigne Fall Seck Thierno Fall Seck moom de am fi la bokk ndeyu Faal Seck fi bokk papa ji mooy eh, eh, Tafsir Balla nekk Mogo mboolu mi ngi gis fii oto yi nekk na fukki oto ak juróom ñett ñett ci ren ñoom ñëpp ci kër gi la dal ngir ba yokkute googu nañ ko yëgee fii noonu nañ ko yëgee ci yeneen boor yeneen côté ci dëkk bi dalukaay yeeg yëpp te mu wóor nunu ni amuñu ci benn rëccu toujours nit ñi ñu ngi yokku de bëgg di ci yokk di def seen engagement di ci def seen man-man e, mu jural nu daal teraanga yu bare bare bare bare teraanga yu àdduna ak yu laaxira yëpp borom xam-xam yi tasee fi e, ak ñu e, niroog ñoom ñu yokku du bëgg yëg ci yokkute ndax ni lépp loo jàpp nga yëg ci yokkute alay sago nga nga ñu koy sante yàlla bu baax a baax. jërëjëf ginnaaw bi ñu waxee li nga xamante ni mën nañu wax ne mooy eh, ci wàllu ziar bi li mu andi. rawante naag xamayel beeg ci wàllu mbokk yi xamee beeg diggante taalibe ak li nga xamante ni yéen a ngi koy am ci ay gan mu yokkute ban njàngat lañu mën a def ci ziar bi nga xamante ci wàllu jàngale ci diine ci wàllu tarbiya. Hmm. waaw ci jàngale ci wàllu tarbiya boo demee ci. ci suufiya ca gaa yi ñooy wax saadaati suufiya e Ceerno Adama def ci nekkoon dex ci daanu daanulu ci nañuy yare doomu aadama ci doomu aadama gi num waree am xam-xam yeewu ci diineem lépp lu mën jàpp mu xam ni lii la ko amal la njariñ lu la nga xam ni la ko amul ñi luñ jëriñ mu bàyyi ko loolu ci jaar-jaar yooyu su fekkee ni sëriñ bi num ci tàggatee ni ñi nit ñi jàpp ci ak ñi nga xam ni ñi nga xam ni bokkoon na ñoom moom dunda temps bañ ñëwee lool na ñuy dekkali te yëg nañ ni encore jur na njëriñ lu bare ci xale yeek mag ñeek ñëpp eh, yokkute ci booru diine ak waxal nit ñi seen mbiri diine ak maandu nañ góorgóorlu ñu maandu nañ nangoo sonna nañ jub nañ nekk bakkan yu sell yoo xam ni eh, rëy ak coxar ak kañaa nekkul ci ñoom yooyu toujours la ñuy feddali loolu itam nooñ ciy gis ay résultat ndax la ci gën bare fii ba bitim réew foñ na ni kii doomu ña doomaanu ñànga la wala kii ci njabootu Ceerno Adama la dana xam jikko yoo gis ci moom yoo xam ni boo àndee ak moom doo ko xeeb loolu toujours loolu la bay eh, da ko wax guddi ak bu bëccëg mm-hmm. macha allah. Ah, jërëjëf euh, duñu duñ la téye lu yàgg ndax xam nañ yéen a ngi waajal gan yaa ngi ñëw te yéen a war a dem léegi ci li nga xamante ni mooy ziar ba nga xamante ni mbooloo bi yëpp dinañ fa daje génn ci ndigal ci teewaayu Thierno Mamadou Adama ak tabaarkàlla yéen ñi nga xamante ni yéen a war a dalal gan yi xataay bi nga xamante ne xat na lool waaye dañ lay soo amoon looy tàggatoog mbokk yi nga xam ñu ngi lay sedan ak mbokk taalibe tey lan ngay tàggatoog ñoom ci ay kàddu. waaw li ñuy tàggatoo eh, euh, dénk suñ bopp euh, ragal yàlla e, ragal yàlla nag moom mënul sotti la dul nga xam ko ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne aarifuuni qabla an taabuduni wa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduni la jiitu ngeen may jaamu daal na ngeen ma xam ndax su fekkee xamu leen ma doole xam nan ngeen may jaamu da soob nit ñi ci ñu soobu ci xam am xam-xam xam-xam yi itam la ko tax jóg mooy jëf bañ amee xam-xam ba pare ñu jëfee ko e itam e, ci tàggatoo bi di di leen dénku àddina ku nekk sa carrière nga am balaa nga fi ñëw mënoo def dara te yii fii day jeex kon nag parafitul nga def yiw dox yiw liggéey yiw e, def jëflanteeg nit ñi ci yiw nga am yiwu àddina ak yiwu laaxira mu nekk ndundagu ligsa daal di ndundagu am maana ndax loolu doomu aadama yàlla moo ne wala qad karram naa bani aadama teral naa doomu aadama ikraam googu teraanga googu nag nit ki waru ko sàggane kon lool mooy la may dénk sama bopp da ko dénk jullit ñi ak képp ka nga xam ni ma ngi dégg suñu baat ci alam bi fu mu mën a nekk ñu ngi leen di béggee bu baax seen teewaay fi da leen jaajëfal ndax euh, mbir mu am la maanaa kontaan nun ci bu baax waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Thierno ñu ngi dellu di la nuyu di la ziar di la baalu àq it bu baax a baax a baax kon mbokk yi woon leen li nga xamante ni seen chaîne muy Chérif Dabakh TV andi la noonu ci lenn ci li nga xamante ne ko jukkee ci mag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ñi nga xam dañ fi dëkk ak ñi nga xamante dañ fi gane si di ngir jëmmi Thierno Adama Gaye waaw loolu gi du dañ incha allahu taala dina am ñeneen ak ñeneen ñoo xamante dinañ leen a gis ngeen ko mën ko suivre ci seen chaîne bi nga xamante mooy Chérif Dabakh TV kon Niass ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf Niass